ñun suñu cër mooy soo leen amee bànneex ñu ñëw ak yéen soo leen amee tiis ñu jegg si leen kon nag moo tax tey li may xat xat xat yëpp ndax liggéeyu jàmbur laa yor dama ne damay wàcc ñëw xool yëf yi massawu leen ne leen maak yéen ñoo bokk tiis bi wante yàlla lu mu def moo gën ndax ñun ay jaam rek lañ yàlla ñu sàkk lu yàlla tudd rek mooy am yal na nekk seen cangat yal na li so len ci joge yal na yu bare bare bare am president Macky Sall dafa def ben programme programme marché Sénégal réhabilitation marché 70 70 milliards ci 70 milliards yi Kaolack am na ci 5 milliards liñ mëna def moy waxal président Macky Sall ñaan ko mu baral Kaolack ndax ñun kat Kaolack lañ am kon nak ñun ñoy avocat Kaolack te su leen su waxee loolu moom mën am ndax marché gi bi nek Dakar raser nañ ko commencer nañ ko dinañ ne président Macky Sall nañu dimbali rek su paré ci ga na ñew ci ñun. en attendant ñu défar marché bi def leen devi mbar man ak samay xat ak samay am di jamm man ak samay xarit ak samay am di jamm ñu set lan lañ ci mëna def wax ji nag buñ ko jaxase parce que buguma ëlëk ma joggé fi rek autorité autorité dëkk bi naan ko ko defarloo mbaar dëkk bi ñun ñëpp ko bokk man xoo xaaruma kenn ci dëkk bi parce que kaw nak la xaaruma kenn ci dëkk bi li may li may def sama alalu bop la sama ñaq bop la lu wara yaq kaw nak dina ci góorgóorlu ko kon nak man xaaruma kenn ci dëkk bi ndax nak la am dama ñëwoon nak ci japp ci tuuti ci liggéey bi li ben million gini, nii ñaari million ngi nii maa leen ko jox en attendant ba maa ko jox en attendant bar bi. Ah, di dalal suñu gan gi Maître Nafissatou job Cissé ñun nak li ñuy yóbbu suñu kaddu moy kaddu ngeureum yi xeyna jallé jàlle nañ ko ñu ngi lay sante bu baax di la gërëm acte bi rafet na rëy na trop trop trop macha allah acte bi ngeen njëkkoon def rek doy ñu sëkk acte bi ngeen njëkkoon def bam mu ñi bok ngeen ci ñi fi njëkk ñëw. mooy suñu kilifa mooy Pape Touré bi mu fi ñëwee wax ñu seede ya nga xamante ni defal nga ko su suma yóbbu ko baytulaal haram mu nekk lu rëy si ñun nga defal ko ñun ñëpp loolu dafa nekkoon lu rëy si ñun ñu koy san ñu koy ñu la koy say santé di ko gërëm boo ñëwaa fii tamit indiwaat sa tuut di ko ñu ko kon sant nañ la gërëm nañ la nga jëlaat benn engagement boo xam ne dañu see fekkoon mooy nee nga euh, li nga xamante ne nii moo fi yàqu pour sant li may njëkkee mooy comme seen kilifa mooy président de la république gannaaw bi ñu ko santé gërëm ko jël na une enveloppe de 50 millions jox ko waa marché ah, marché def nañ liste de 500 personnes déposées nañ ko gouverneur ñi ngi xaar liste pour mën a pour l'instant ñu mën koo jox képp ku bokk ci marché bi rek di fi yëngu ci liste boobu yaa ngi ci biir kon ci acte yooyu ñu ngi ko siy gërëm bu baax di la yóbbante cant ak ngërëm loolu nga engagé wu jël projet boobu fépp fu place nekkoon nga ñëw ñu won la ko nga daajal ñu ko loo sa mën a nga def ko loolu dañ la ko santé dañ la gërëm yow waxuñ la ko far nga jël engagement boobu wax ne lu ngeen si mën na ngeen ma ko wax def leen projet mbaar kon ñoon ñu ngi woon si projet boobu loolu loo si mën a taxaw bu soobee yàlla dañ ko def indi ko si yow